nangeen ngeen sant bu baax bisu màggat bii bu dikkatee bu leen jéem lenn lu dul bigal nit ñi bigal seen bopp loolu la ci digle nanga nga daa jullee nag da nga niy jullee naka jekk li nga daa jànge alxuraan tubarkalla waaye li mu wax mooy nañ ma ci sant le yàlla ci ay ñam li ko dale ci ganaar ba ci giléem feet la tudd feet du jaamu yàlla màggal feet la tudd waaw day sant yàlla ci li ko yàlla defal lu ne la ci wax bi mu ko diglee da caa tege ne waaye nag na ngeen xam ne ama masachin ci la ma sunu boroom xamal digale ne bu ma nangooti luñ ma jox nee na ma sama jumaa jee naa koy tàmbalee dajale la nee na ma bul may naa la nga di ci jël lu toll nangam ba yàgg mu mu ba yàgg mu ne ma mu ne nee na nee nañ ma bul ci jëlati dara ba yàgg mu ne nee nañ ma bu mu jaarati ci sa loxo ñuy foog xaalis bi di génn am na ñaari at yoo ne tegut bëtam ci ci lañ koy jox jumaa ji lépp a matoon lépp xaalis te daañu dem ba gis ne dana ma sa toll fa mbëgg dëddu neex a wax nanu sant bu baax a baax na imalu ala daawuda shukran waaye wa qalilun min ibadiya shakur soo jullee bu yàlla dindee kattan gi la may ba julli doo dese dara boo wooree loo defal yàlla moo may na ko def waaye sant nag sant dong la ab jaam am ci loo xam ne ci boppam la jóge jëm ci boroomam moo tax mu gën a màgg ci kawe yi dafa am bis ci kilifa yi ku ñëw ne sëñ Touba gàmmo gi weesu de def naa ci lii def naa ci lii def naa ci lii ci mu ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa delloo la njëkk njukkal mu ne ko kon yàq nga sa yëpp xanaa xamoo ne loolu nga man maa tax nga man <laughs> kon mënu ma mënu koy moom kay neel neel def nga li ngay def waaye bu fekkee jubluwoo ci lu dul delloo mu njukkal moom mënta ne ndax maa tax ñu topp la sunu boroom loo ko defal day génne bu génnee la la nga xam ne moo tax nga mën ko li ngay defee dana ñëw sant gën a rëy ci jaamu yàlla innahu kaana